Euh, te loolu sax am na kuñ cee lim ne xëy na moo ko moom ci réewum Chine di Babacar ñaw te kooku di doomu euh, Touba ñëpp xam ko moom sax fësal na tontu ne loolee ñu ko ca waxal dara amu ca liñ ci bëgg a wax rek mooy nit ñi ñu bàyyi xel euh, xeetu xëy na masque bu nekk ak fa muy jógee ñu maytuñu ko tey it fexe ba li nga xam te moom moo di lu nar a yàq wala gàkkal ñu maytuñu ko ñu fexe ba am masque yoo xam ne maanaam bu ñu fexe ba jur coow parce que tamit màggal gi bu ñu ko def màggal de business. parce que bu ñu bëggee ne sëñ bi laaj ne ay nangam de mille euh, nangam de millions de masques nit ñi bëgg caa jaar ne xeet lu nekk ñu màndarga ko ca loolee jugewul ci sëñ bi tey jugewul ci euh, sëñ bi ëllëg te loolee bu fekkente nag ñu ngi ciy tuumal ay nit ñu ngi leen di tooñ te ñi nañu fexe ba lépp loo xamante moom mooy gën a indi xar kanam gu rafet gën a indi doxalin bu am solo bu sell ci dëkk bu sell boobee nañu dëppook loolu bañ cee def li ñu naan lu tëgg rax ca përëm loolu buñ ko def nañu fexe ba li nga xam te moom moo di rek sëñ bi na mu wootee ñu demee noonu Touba si dal dem si jàmm ku mën a indi sa masque nga indi ku di tailleur tamit nga a confectionner masque defar nga defar ku